Bonsoir, euh, chers téléspectateurs. Euh, nous sommes actuellement au Cadendomain pour euh, une émission concernant donc les femmes. Aujourd'hui, GMS met à l'honneur donc les femmes de la région de la Casamance, mais aussi celles du monde entier, et surtout qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, c'était l'occasion de célébrer les femmes de la Casamance et du monde entier. Pour les accueillir aujourd'hui, nous sommes deux, n'est-ce pas, Badien hein. Donc, c'est une causerie entre nous. Alors le thème euh, pour ceux qui sont actuellement en train donc de nous suivre, c'est donc responsabilité professionnelle, femme avant tout et devoir conjugal. Donc autrement dit, comment allier donc notre vie professionnelle aujourd'hui et notre devoir conjugal dans notre société sénégalaise, casamançaise et africaine en général. Je vais me permettre de passer donc le micro à tout le monde qui est sur le plateau aujourd'hui. Nous partageons, il n'y a pas un invité spécial, tout le monde aujourd'hui est invité d'honneur. Euh, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que donc la femme quand même a évolué dans les droits hein? Moi, en tant que juriste, ce que je pourrais dire, c'est que déjà au niveau de la code, du code de la famille, donc il y a une, une euh, certaine évolution, surtout que l'article 152 a été modifié, que maintenant nous parlons d'autorité, donc parentale, puisque de puissance paternelle. Bon, l'homme, le, mari, donc reste quand même chef de famille, mais n'empêche que la femme prend de plus en plus de place au niveau donc de la loi, notamment donc au, niveau de la loi donc du code du travail, dans son article premier L1, qui rappelle donc l'égalité donc euh, des hommes et des femmes donc euh, face au travail et qui rappelle également donc qu'il y a une non discrimination pour l'accès donc au travail. Euh, cette discrimination ne doit pas avoir lieu selon qu'on est un homme, selon qu'on est une femme, selon le sexe et l'âge, etc., etc. D'autre part aussi, c'est de concilier dans notre vie de femme, de par notre nature de femme, de voir aujourd'hui comment nous vivons notre situation, quelles sont donc les choses à améliorer, quelles sont les choses donc euh, à modifier. Alors je pense qu'on va ouvrir un micro, on va passer donc... Euh, le micro, madame, présentez-vous. Merci bien. Moi, je me nomme euh, Ndei Marie Sagna, madame et Je suis coordinatrice euh, de l'Association régionale des femmes pour la recherche de la paix en Casamance, qu'on nomme euh, Cabanquetor. Également, j'ai une petite entreprise et bien voilà. Euh, donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on pourra parler, comme vous l'avez demandé, de comment on pourrait concilier notre devoir de femme, de femme au foyer et notre devoir professionnel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Tal Maïmounagé Je suis conseillère technique régionale VIH à la région médicale de, de Ziguinchor. Bonsoir tout. Moi, c'est Je fais partie des femmes handicapées de Ziguinchor. Et je suis au COSEF aussi et à la plateforme. Nous allons passer maintenant le micro derrière nous. Madame, présentez-vous. Bonsoir. Moi, c'est Madame Mawa Doumbia. Je suis enseignante de profession. Euh, présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, AFAO. Je suis membre du réseau Sigil Digen et membre de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Je suis aussi conseillère de quartier. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Khadija Massalé, membre de COSEF. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je me nomme Véronique Sambou, plus connue sous le nom de Madame Dabo. Donc, je suis la coordonnatrice régionale de l'AMO de Ziguinchor, un service judiciaire de protection de l'enfance basé au quartier Escal Bonsoir, moi je m'appelle euh, Raissa Sanya. Je suis chargée de communication à Kabonketor et euh, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bonsoir, je salue d'abord euh, toutes les invités et je salue aussi les téléspectateurs et téléspectatrices euh, de GMS. Euh, moi, c'est Madame Gay Astakambi. Je suis la responsable du bureau d'écoute des violences faites aux femmes et filles au niveau de la maison de justice de Gingenshaw, qui fait partie du dispositif justice de proximité et qui est une partie intégrante du ministère de la Justice. Merci. Badian. On va te laisser donc te présenter. Assalamu alaikum, auditeur et auditrice sur GMS FM 89.3. man may bàjjenu gox régional bu Chor. di liggéey ci GMS parce que dama fay def ay émission de du lundi au jeudi de 9h à 10h ma dadi di bokkati ci kuréel gu ñu ne le réseau en train de faire ci FAPS bokk na ci plateforme su ma bëggee lim li ma bokk yëpp duñ fi jeexee bañ nañ ko ba mag kii ci ginnaaw dafa am tur yi ñu nommé nee nañ ñun ñooy Jimbo Ziguinchor. Wow. Donc euh, bon, moi c'est Maître Diana Salidabo. Donc mm. aussi je suis animatrice au niveau de GMS. J'anime l'émission Justice pour tous chaque lundi à 22h30. Donc chaque lundi à 22h30, vous pouvez nous suivre en direct sur GMS 89.3 et aussi sur l'application GMS Ziguinchor partout où vous êtes donc dans le monde. Alors en parlant donc de responsabilité professionnelle donc et de devoir conjugal, on rappelle un peu la loi puisque c'est le droit donc des femmes hein, qui sont mis à l'honneur le 8 mars. Journée internationale donc du droit donc des femmes, donc des droits des femmes. Il faut savoir que le droit des femmes donc a quand même assez évolué, notamment donc l'accès à la propriété foncière qui est accessible à toute personne. Également aussi, bon, pour l'ouverture d'un compte bancaire, toutes les femmes aussi peuvent ouvrir un compte. Dans, les banques. Il n'y a plus besoin aussi d'avoir l'autorisation d'un mari maintenant pour exercer une profession. Avant, c'était le cas, mais ça fait maintenant des années que ça a été donc euh, modifié dans les textes et que maintenant, donc, toutes les femmes peuvent travailler, ont droit, d'ailleurs elles sont encouragées à cela. Alors j'allais vous demander euh, comment se passait donc à l'époque euh, vos carrières professionnelles pour ceux qui, sont un peu, qui ont un peu plus d'expérience. Vous avez commencé à travailler à quel âge, madame Merci. J'ai commencé à travailler à l'âge de 33 ans. Et j'étais, en ce moment-là, c'était pas ici au Sénégal, mais plutôt en Côte d'Ivoire j'étais quand même une euh, assistante juridique euh, d'un maître Adam Kamé, qui était euh, avocat au barreau de Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai travaillé avec un notaire, j'ai été clerc de notaire de, excusez-moi, du CIE plutôt, du CIE de justice, toujours en Côte d'Ivoire. Et ensuite, après, ben, pendant euh, un laps de temps, j'ai eu à gérer euh, un camp de vacances dans l'hôtellerie, la, restauration. En fait, j'ai beaucoup de casquettes et j'ai fait pas mal de métiers et de choses ici. Mais juste pour vous dire que quand même, je suis juriste de formation et ça date des années depuis 83. Donc, euh, je pense qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Vraiment, je vous félicite pour ce parcours. Justement, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre avancée, votre vie professionnelle On va faire le tour de table par rapport à ça. Bon, pour l'avancée, disons qu'au fur et à mesure, bien sûr, j'ai changé d'activité. Et quand je suis arrivée ici à Casamance, euh, en 2003, j'ai commencé par euh, militer dans l'association Kabonketo, mais en même temps, j'ai créé une entreprise de bâtiment et je suis aujourd'hui spécialisée dans la réalisation de mini-forages. Et effectivement, c'est à ce niveau-là que je commence à voir qu'il y a des difficultés. Difficultés par rapport à, l'accès au marché et difficultés également par rapport à la confiance qu'on pourrait avoir euh, une femme entrepreneur, surtout dans ce domaine qui est assez difficile. Madame Merci beaucoup. Euh, moi, je dirais que j'ai commencé dans l'informatique en tant que monitrice à l'Institut ISI de Ziguinchor, Institut supérieur d'informatique, en tant que monitrice avec euh, euh, une expérience un peu sur le, développement. Juste, je l'ai fait en un an. Ensuite, j'ai quitté pour faire être dans le communautaire avec le projet de nutrition communautaire de la GTIP. Euh, entre 96 et 98. Euh, ensuite, je me suis lancée dans le groupement de, femmes. Je suis en même temps présidente d'une association régionale de femmes pour le développement de la région de Ziguinchor. Et je suis femme entrepreneur. On s'est rencontrés plusieurs fois avec des Marie. J'ai eu à avoir des projets de bâtiments comme des projets de réhabilitation depuis. Mais là, je dirais que c'était un peu plus flexible à mon niveau en tant que femme. Je n'étais pas vraiment casée sur un endroit bien précis. Il fallait multiplier les expériences, essayer de voir. C'était comme de l'aventure, mais je n'étais pas encore mariée. Peut-être j'avais cette liberté de, toucher à tout. Ensuite, euh, je fus même relais communautaire. Et là, avec euh, ce travail que j'ai. Je veux dire que je n'ai jamais attendu d'avoir un emploi fixe, un emploi rémunéré, mais je me suis toujours battue toute seule avec l'appui de mon papa. Euh, mais quand même, à chaque fois, je réussissais, en tout cas, ce que j'entreprenais, parce qu'il y avait déjà la volonté, l'engagement, et j'y croyais. Et ça m'a permis de faire euh, beaucoup de choses en même temps, d'avoir d'avoir des expériences, de connaître le milieu dans lequel je vis, euh, et surtout le milieu le plus souvent avec des hommes, ce qui n'est pas très facile. Euh, on était obligé parfois d'être comme eux, avec les mêmes réactions, être prévisible et de changer de cap au, temps opportun. Et entre plus, après cela, je fus assistante du projet de lutte contre le sida du Conseil national de lutte contre le sida de 2004 à 2015. 2009 euh, à 2016, j'étais en même temps une assistante qui appuyait la région médicale dans la gestion de la lettre d'accord avec le projet Family Health International. je faisais le suivi financier et technique des activités. Et là, en 2000, 2015, fin 2015, euh, j'ai perdu mon mari. J'étais, en même temps, j'ai arrêté mon contrat, était fini. Mais n'empêche, j'avais des contrats avec d'autres partenaires parce que juste j'avais de l'expérience, euh, j'avais mes compétences en tout cas dans ce que je faisais et Dieu merci, je réussissais euh, tout ce que je faisais. Je, je sans, sans pour ne pas trop dire, mais en tout cas, j'ai fait mes résultats tout, le temps dans les, activités que je menais ou bien des activités qui m'étaient confiées. C'est en août 2016 que je me suis retrouvée à la tête de cette organisation au niveau de la région médicale de lutte contre le sida, donc pour la région de Ziguinchor. Ce n'est pas une chose facile, mais je pense qu'il suffit juste d'y croire pour réussir. Merci. Merci, madame. Bonsoir. Ah, je vais parler en Wolof. Oui, mon Bon, moi, je suis une entrepreneur. Euh, j'ai commencé par faire des, des extractions d'huile et de savon. J'ai toujours euh, travaillé seul. Bah, c'était pour moi voir les yagna di liguey ci entrepreneuriat extraction d'huile savonnerie vente euh, commerce euh, j'ai voyagé j'ai beaucoup voyagé entre Ziguinchor Diaoubé Guinée Conakry et avec beaucoup d'expérience di dem ay Dakar Ziguinchor commerce petit commerce grand commerce comme ça et après ma ñëw que relais handicap parce que j'ai même eu à faire une formation avec la dame là mhm. parce que on s'est une fois vu si bien euh, formation mu ñëw expliquer nous, comme elle a bien expliqué son histoire et je la salue de passage xamni jigen ñi dal ñu ngi góorgóorlu man ci lolu la mës di dox nek euh, sama liggéeyu bopp di yoraale sama jaboot yoraale sama mariage juste après sama jëkkër gaañu en 96 te ba léegi maa ngi ci liggéey boobu mm, maa ngi jàppale sama jaboot bi di góorgóorlu daal si extraction bi ak savonnerie bi mujj naa bokk ci groupement aussi des personnes en situation de handicap les femmes handicapées Euh, jota ak ñoom wax leen sama xalaat ñu liggéey ci sama expérience yi huile huileur ak savonnerie ak yu bare yu nga xam ñu ngi koy exploiter fi mu nekk ni donc euh, may wax ni di liggéey di liggéeyal bopom di ci am jammam dal je vous remercie légui nak def dinañ jox cadeau gi la grande dame madame Aris quand madame Aris présente vous, nga allons continuer à la grande des grandes. man euh, madame Aris sage femme de formation Je ci Ziguinchor maîtresse sage femme au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor cumulativement je suis responsable de la santé maternelle et infantile responsable de la planification familiale. Mon responsabilité sociale, je suis avec les mouvements de femmes. Je suis la présidente du réseau Sigil et je suis la présidente euh, du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Bon, la casquette de sa femme, euh, Dieu merci, je remercie le bon Dieu. J'ai pu la passer aux jeunes je, suis, je reste maintenant présidente d'honneur, mais il y a une présidente actuellement euh, qui va prendre le flambeau et continuer le travail qu'on a toujours fait ensemble. Donc je suis là, à la disposition des femmes, en brassage avec mes soeurs pour mieux les comprendre et mieux les assister. Dans le cadre de votre euh, profession, quels sont en fait les obstacles que vous avez réussi à surmonter dans le cadre de ma profession, euh, c'est un peu difficile de mener la profession de sage-femme et le rôle d'épouse. C'est un peu difficile parce qu'au début, étant jeune, je devais monter des gardes. Les gardes euh, c'est mieux supporté par les hommes que les gardes de nuit. Parce que quand euh, monsieur. Ah, avec les enfants, passer la nuit au service des autres, c'est un peu difficile. Il faut avoir un mari tolérant, un mari compréhensible que, pour que le travail soit facile. Mais Dieu merci, je suis tombée sur quelqu'un qui m'aimait, qui m'accompagnait, qui me comprenait et qui me facilitait la tâche. Donc euh, les obstacles étaient plus faciles. C'est pour cela que quand même j'ai pu sortir hein, des quatre murs dépasser un, peu le cadre de ma profession, me brasser avec mes sœurs pour mieux les comprendre. Parce que pour assister les femmes, il faut connaître la femme. La femme est très complexe. Il faut la connaître, savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle déteste le plus et comment elle voudrait qu'on l'assiste. Ça, c'est important. Parce que sinon, on a beau faire, euh, on est toujours près de l'échec. Et Dieu merci, ce brassage m'a beaucoup formée, m'a beaucoup instruite. J'ai tiré beaucoup de profit à ça. Et je m'entends bien avec toutes mes sœurs que j'aime bien, avec qui je suis tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Euh, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 22 ans. J'étais une très jeune instructrice. Parfois, on me confondait aux élèves. en ce moment, j'étais célibataire jusqu'à un certain moment où je me suis mariée. C'est en ce moment-là que j'ai senti la difficulté parce que euh, à l'école, il faut enseigner. À la maison, il faut continuer encore le travail de l'école, c'est-à-dire faire des préparations, faire des corrections jusqu'à des heures tardives. Et monsieur, même s'il ne vous demande pas de vous lever, <laughs> il y a des agissements qui vous font comprendre qu'il en a marre. Ça, c'est des difficultés parce que vous êtes euh, partagé entre votre profession et votre devoir conjugal. Très difficile si vous ne tombez pas sur quelqu'un qui vous comprend, vous risquez de perdre votre emploi ou alors d'être inefficace. Et si vous êtes une femme comme moi, peut-être que vous aurez moins de problèmes parce que vous encaissez tout, mais votre devoir, vous le faites qu'il soit professionnel ou conjugal. Alors, la femme, madame, la doyenne, madame Alice vient de le dire, la femme est confrontée à beaucoup de problèmes. Parce que il y a aussi les grossesses difficiles. Et le congé de maternité, c'est vers la fin de la grossesse qu'on l'apprend. Et vous êtes souvent entre aller vomir et revenir travailler, ne pas sentir certaines odeurs avec les élèves, rentrer à la maison aussi, faire la cuisine, parfois en bouchant le nez, parce que certaines odeurs euh, vous dérangent. Euh, tout cela, euh, nous les traversons. Avant, il était difficile aux femmes de travailler. Très souvent, beaucoup de femmes ont abandonné leur travail parce qu'il y a le devoir conjugal et les pesanteurs socioculturels qui font que les femmes abandonnent parce que les parents vous demandent d'abandonner, de ne pas travailler parce que vous devez vous consacrer à votre mari. Bon, peut-être que la révolution là a commencé peut-être à notre génération, et ça a été difficile. Et beaucoup ont perdu aussi leur foyer. Parce qu'il y a des maris qui ne supportent pas ça. Tantôt, c'est des coépouses qui viennent. Ou alors vous êtes abandonné par ce mari-là parce que euh, il se croit, il croit que vous vous égalez à lui. Parce que vous travaillez, donc vous aussi vous avez un salaire et vous vous souciez moins de lui. Cela, c'est des problèmes qu'il faut gérer à tout moment. Je m'arrête là pour le moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, euh, pour les femmes qui travaillent et qui sont mariées. Beaucoup de choses. femme leader bokk na ci kilifa Ziguinchor kon maam waxal yaay kat. waaw waaw maam man wéet naa gis ma kenn ku lakk sama lakk bi xocc baar ma. salaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi sant euh, di gërëm assistante bi fi ne soxna yi jëkk yu fi ne vraiment c'est une beauté te bu fekkee topp naa waxu ñi ma fekk ñuy wax dañuy laajte jigéen mhm. ak sëy mhm. man nag dama tànnoon <laughs> man dama tànnoon parce que doomu soose la soose ku nekk xam na fu mu teg sëy bu may sëy dan ma yebal ne ma demal sëy tarbiyul sa sang la kon bu ma ñëwee moom moo taxawu pour ma nekk dara waaye man dama bañ ma ne dafa am luñ ma sas liñ ma sas nag mooy lan mooy ma am ay doom nekk machine à reproduction aw ma ndax xam ngeen wax boobu ma madame Aris moom xam na loolu lu mu tudd xam nañ ko bu baax maam. <laughs> feesal këru soose bi moom fees del waaye dama ci pare rek ma tànnaat leneen dugg ci développement waaye fekk ku mujj am na mhm. ku ci mujj am na ma ne nag mun naa dem toppatoo sama bopp parce que moom def na lépp pour ma doon dara waaye man tànnuma loolu man dafa am lu ma tànn ndax loolu lan ma yebal. ma dugg nag ci développement développement tam bu ma ci duggee ci ñaw jiitu di ñaw ba ubbi centre dem sama village jël xale yi jigéen yu nekk en déperdition di leen di leen jàngal ñaw jóge foofu ñu fekk ma fa samay sœur fekk ma fa mooy jigéeni sant yàlla yi ne pour ma nekk seen secretaire général nekk ci groupement bu ndaw secrétaire général jóge fa nekk secretaire général zone bi jóge fa nekk secrétaire euh, général adjointe sant yàlla jóge fa nag nekk secrétaire général jóge fa soog a nekk présidente man nii laa raamee ba ma yegg fii ma yegg nii tey kon lu ma jàng ci biir mbooloo laa ko jàngee ndax man sama jàng sorewul certificat d'étude laa am mu doon nag xëy na Cheikh Cissé nee na mu ngi koy méngale ak baccalauréat tey te nangu naa loolu ndax fu ñu toog mën naa fa toog fu ñu waxtaanee mën naa fa waxtaan xanaa bu ñu duggee ci mathématique yi ci lay xawal lanc lanc yi di soog a feeñ. ñu soog a xam ne kii kat jàngul. kon nag euh, bu fekkee ne boole sëy ak liggéey foog naa temps bu ma ko def yàggul waaye ku ma yàlla booleel ku baax a baax a baax parce que léeg-léeg sax ma retranché wu bëgg a génn ci kuréel bi pour moom mu am lu ko neex. mu ne ma bu dee man rek la bu yóbboo nga dem ànd si say morom mbaa mu woo sama présidente Adama Badji yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ko waa soxna si nga bàyyi fii nag mu ngi toog fii mu ne dafa gedd mu ne maa koy jël si mu ne ko maa koy indil dugal ma ci otoom yóbbu ma ba sant yàlla voilà comment cet homme a de moi ce que je suis hmm. ko ci sant bu baax a baax di ko ñaanal euh, fi mu nekk yàlla yërëm ko te xare ko àjjana Euh, si c'est le mariage et les grossesses, parce que j'ai entendu Mawa en parler, bon, moi je préfère faire euh, les grossesses que de tenir les enfants. Si bu bëgg nag nga jox suis un Mais bu rek amna problème parce que damay jël sama sama xol sama loxo sama suis Je xaw ma nag ndax tay nit ñi dinañ ko man yobbu man numa ma doon defee boole ko ak jamono bi ñu nekk nii tey ndax tay ku ko bëgg def di nga wax lu set waaw c'est un choix moi j'ai choisi de veiller sur mes enfants ba ñu am maturité ma soog choisir maintenant de devenir une femme au développement je vous remercie jàllaleel sa ginnaaw parce que sunu dom la ko xamantene aussi ñun jigen ñi dañuy liggey legi pour xalé yi ndaw yi parce que dañuy bëgg ñun buñu ñu toogee retraite parce que egg nañ ca mo am ño xamantene aussi ñooñu mën remplacer kon aja waxal yaay kan ak fan nekké assalamu alaykum ma ngi nuyu mbolo bi fi tew yëpp ku nekk ci turum ak santam man ma ngi tuddu Fat Bintou Tamba maa ngi liggéey ak sama tante madame arisi clinique am bi. Mhm. dëgg la luñ fi jéem wax yépp jigéen mom vraiment chapeau man loolu lay ñëk wax parce que metti na trop nga bëgg a liggéey bëgg topoto dom yi ci kër ga loolu metti metti la may wax sama moromu génie ñun daal nañu xool ci suñu maman yi peut-être day métti métti nag si jam métti na trop si jamono bu ñu nekk. Mhm. pour nga mun a def comme sa yaay nu mu doon def parce que temps bi moo ñu ko mayatul liggéey yi bëri na soxla yi ute ni man lu ma leen di ñaan rekk mooy ñu jéem daal bu ñu jéemee xëñ na yàlla dina ñu ci def suturaal ba ñu mun a atteindre. objectif bu suñu yaay def man lo la len di ñaan daal sama wax dal du sori parce que <laughs> mënuma wax non ci public dal ok merci. assalamu alaykum ma ngi len di wat man li ma def ci sama jaay jaay la commencé luma ñëk def sama liggéey man jaay la commencé don dem Gambie du ay bagage nekk ci nekk ci ba yàlla may ma borom kër bi ma amee borom kër ma bàyyi Gàmbi bi may dem dakaar mu ma indil ay bagage di indi ay bagage ma koy jox ay nititu duutiir limon mu may yóbbul di ma placer di ma placer di ma placer ba yàlla def lii am mhm. période la joolaa mu des ci ma toog ñu toog toog toog ba ñu dem def famille bi comme genre association ñuy defar ay saabu

de réunir euh, autour de tout un chacun d'entre nous euh, des femmes, des femmes de renom. Ça, c'est comme ça que je peux le dire, parce que de grandes dames comme Madame Harris, de grandes dames, effectivement, comme euh, Adia qui est derrière, cette ravissante dame, de grandes dames comme la Badianougor régionale, que j'appelle Badianougor internationale, et tant d'autres dames que je ne pourrais pas citer de par le nom, parce qu'effectivement, n'ayant pas connu le nom de tout un chacun d'entre nous, et de ma sœur qui est là à côté de moi, qui a un excellent travail au niveau de la maison de justice. Donc moi, c'est Madame Dabo, comme je le disais, donc euh, Véronique Sambou, donc, je suis la responsable euh, régionale, effectivement, de l'AEMU de Ziguinchor. Mais je reviendrai un tout petit peu sur ma riche carrière professionnelle, j'ose le dire. C'est vrai que je suis assez jeune de par l'âge, mais j'ai quand même travaillé très tôt, parce que j'ai commencé à travailler en 2004. Donc, je suis sortie de l'école de formation en 2003, et euh, nous avons été recrutés par l'État en 2004. Donc, en 2004, j'ai été affectée au centre polyvalent de Tcharoy donc un centre de prise en charge de jeunes filles qui appartient au ministère de la Justice. Donc c'est un centre effectivement de réadaptation de jeunes filles, donc qui soit euh, sont en conflit avec la loi, ou bien des jeunes filles qui sont en danger, ou bien des jeunes filles qui sont victimes de situations bien particulières. Donc c'est un centre qui est situé juste au niveau euh, de Tcharoy, juste euh, à côté euh, du centre psychiatrique de Tcharoy. Donc j'ai eu à travailler là-bas de 2004 à 2008 et pour des raisons effectivement euh, familiales, j'ai demandé effectivement à rejoindre Ziguinchor. Donc à Ziguinchor, j'ai travaillé au niveau de l'AMU de Ziguinchor, donc de 2008 à 2012 pendant 4 ans où j'ai connu d'excellentes dames, ces grandes dames que je viens de citer, je les ai connues au niveau, au niveau de l'AMO de Ziguinchor. Elles m'ont beaucoup appuyé effectivement par rapport à la prise en charge des enfants, mais surtout par rapport au volet prévention qui joue un rôle euh, important par rapport effectivement à l'accompagnement des enfants, notamment des enfants en danger, mais aussi des enfants en conflit avec la loi, mais également des enfants victimes. Donc en 2012, j'ai été affectée également au niveau du centre sauvegarde de Candé, qui est, soutenu euh, qui est situé juste euh, en allant juste vers Boutout, donc juste après le barrage. Donc j'ai fait là-bas un an et demi avant de revenir au niveau de la de Ziguinchor comme responsable. Donc de juillet 2014 jusqu'à nos jours, j'en suis la responsable. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a des dames qui ont évoqué effectivement la difficulté de pouvoir allier vie professionnelle et vie conjugale compte tenu effectivement de beaucoup d'aléas compte tenu de l'incompréhension qu'il y a effectivement entre la femme. Il y a effectivement une confusion de rôle qui a été effectivement euh, euh, évoquée effectivement en introduction par Cissé. C'est important parce que c'est des situations auxquelles souvent les femmes sont confrontées. Mais me concernant, euh, c'est vrai que je me suis mariée en 2009, mais avant effectivement mon mariage, qu'est-ce qu'on me disait, On me disait tu es une femme engagée, une battante, est-ce qu'en réalité, une fois marié, tu pourras effectivement concilier, tu pourras effectivement gérer ta vie professionnelle avec ta vie conjugale J'ai toujours dit oui. Parce que pourquoi C'est vrai que euh, les dames qui ont pris la parole, c'est vrai que nous ne sommes pas de la même génération. Ce sont nos mamans. Nous, nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir choisir. Et quand on choisit, moi je me dis que nous, la nouvelle génération, on ne choisit pas juste par amour, mais on choisit effectivement la personne parce qu'elle nous convient. Parce que la relation conjugale, je pense que euh, on y va par convenance d'abord. Par convenance. Parce que pourquoi convenance Parce que je me dis que euh, c'est effectivement euh, une personne avec laquelle il faudra aussi discuter. Il faudra voir est-ce qu'il y, a, y a une coordination entre ce que nous nous voulons et ce que effectivement ce monsieur qui doit devenir notre mari veut. Et c'est ça, ça aujourd'hui, ma, moi, ma chance. Je ne m'en glorifie pas. C'est vrai que j'ai un mari, je me dis que c'est un mari qui est adorable. Parce que voilà un mari qui ne se dit pas que j'ai une chose. Parce que souvent, le problème qui se pose, c'est parce que les hommes nous considèrent souvent comme leur chose. Du moment que vous donnez la dot, effectivement, pour prendre cette dépôt, cette, dame-là, vous dites que c'est ma chose. Parce que euh, le, le, le, des femmes, le commande des hommes surtout, pense que la, femme, c'est celle-là qui doit être soumise. Mais est-ce que la soumission est signe d'esclavage Moi, c'est la question effectivement que je me pose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements par rapport effectivement à, la, jonction qu'il faut faire entre la relation conjugale et la relation professionnelle. Est-ce que nous, les femmes, nous sommes assez prêtes Nous sommes assez prêtes pour effectivement nous dire que nous pouvons nous sommes capables effectivement d'aller vers la réussite. Parce que ce n'est pas, pas aux hommes de nous pousser vers la réussite, mais c'est nous d'abord qui, devrions y croire. Et euh, je magnifie effectivement l'intervention de la grande Drianke qui est là en face de moi, qui dit effectivement qu'il faudra y croire. Et c'est ça. Mais la question que je me pose toujours, est-ce que nous croyons que nous-mêmes, nous pouvons aller de l'avant sans que les hommes ne nous poussent effectivement vers ça Je pense qu'il y a un autre questionnement aussi qui est là. Euh, et je pense qu'il euh, est important de nos jours euh, de, se poser la question à savoir, est-ce que nous osons aller effectivement euh, vers, vers, vers cette, cette, décristallisation au niveau effectivement de, la famille Est-ce que nous sommes capables d'aller vers ce travail de déconstruction Parce qu'aujourd'hui, il, y a, il y a beaucoup de situations au niveau de la cellule familiale qui empêchent effectivement les femmes de s'épanouir du point de vue professionnel. Il faudrait effectivement qu'on sache que on peut bel et bien s'épanouir du point de vue euh, du, prof, du point de vue professionnel, mais il est autant possible de pouvoir s'épanouir du point de vue conjugal parce que nous-mêmes nous y croyons, mais aussi nous sommes accompagnés par quelqu'un. Parce que nous ne devons pas effectivement chercher à être devant les hommes, mais chercher à être à côté des hommes. Et je magnifie effectivement euh, euh, l'accompagnement aujourd'hui de mon mari qui me permet de travailler jusqu'à des heures tardives. Nous savons qu'en matière de protection de l'enfance, ici à Ziguinchor, les problématiques sont là. C'est un terrain qui est là. Et il faudrait effectivement qu'on aille vers les populations qui ont besoin effectivement de notre accompagnement permanent. On ne peut pas se, se, permettre de dire que je descends à 18h ou bien je descends à 16h parce que je suis fonctionnaire. Le travail est permanent et ça demande un engagement. Mais cet engagement-là, c'est parce qu'il y a un grand monsieur, parce qu'on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et moi, j'ai l'habitude de dire, derrière cette grande dame que vous voyez, il y a un grand monsieur qui s'appelle Moumoudou Dabo, qui est là pour m'accompagner de jour en jour. Mais aussi, il y a une grande, une grandissime dame, ma maman chérie que j'adore, qui m'accompagne tous les jours, qui est là pour veiller sur mes enfants. Ce n'est pas parce qu'elle se substitue effectivement à mon rôle de mère, mais c'est parce qu'elle est là aussi pour m'accompagner, pour me dire, ma, femme, ma fille, vas-y, les gens ont besoin de toi autant que les enfants ont besoin de toi. Mais il faut savoir conjuguer effectivement le devoir conjugal et le devoir professionnel. Donc je m'en limite là. Merci. <laughs> complètement Mamadou Dabo d'abord. <laughs> alaikum yi man euh, effectivement dama commencé depuis 2008 depuis 2008 à HHS nga avons ne la laa daan liggéey au niveau de Dakar mm. ma ci joggé de naa Sonatel ñu ngi def euh, promotion de l'emploi ma daw dem dugg PCCI am fa contrat de 4 ans 4 ans de 2011 à 2016 le contrat est fini j'ai décidé de revenir ici à Ziguinchor à Giguinchor parce que je pense que ici à Giguinchor, je peux réaliser beaucoup de choses. Je peux même avoir un emploi parce que beaucoup de jeunes au niveau de Dakar, des New japonais tout se passe à Dakar c'est-à-dire boo nekkul Dakar rek faut am liggéey maa parce que je na <laughs> en bi Donc, <laughs> je lu yàgg ba nii laa auprès des femmes de Ketor. voilà auprès des femmes de Ketor ni donc euh, les femmes de 14 d'où notre euh, coordonnatrice madame euh, Ndeye Marie Le Cayer bi nga soutenir lu Nous ñu comme chargée de communication donc chargée de communication je fais tellement d'activités moi je suis tellement contente d'ailleurs de me retrouver aujourd'hui parmi ces grandes dames ces femmes et ce que je veux en tant que femme et en tant que jeune ce que je souhaite c'est d'être une grande dame, une dame de développement, comme Madame Harris, Madame Lecaire, Madame, Madame Badianogor, etc. Et toutes ces femmes qui sont là présentes. C'est ce que moi je souhaite. Je veux que l'on aide la jeunesse, les jeunes femmes, surtout. On parle de l'autonomisation des femmes, mais moi je veux profiter de l'occasion pour parler de l'autonomisation de la jeunesse. Parce que c'est vrai, d'être là avec nos mamans, d'être soutenu par les femmes mais boo demee ba à un certain moment yow en tant que maman da ngay soxla sa donc bu demee am yeneen âge yi mu lay soutenir que yow nga koy soutenir parce que fii dañuy gis nit bu dem ba am 30 ans 33 ans yow tu n'es pas autonome sa yay mo lay toppatoo mo lay jox li ngay fajo mo lay jox li ngay duo la ngay ki et moi en tant que femme je veux défendre cette cause je veux qu'en Casamance, ici à Giguinchor, nous ayons cette autonomisation. Je ne pas de mari, je ne suis jamais mariée. Je souhaite qu'à l'avenir, je serai mariée et je pourrai, de cette émission que nous, allons, que nous sommes en train de faire, prendre des décisions, apprendre à être un jour une bonne femme de, de ménage, une femme au foyer. Merci. waaw balaa madame Guèye di wax parce que sunu doom ji li mu wax defe naa mooy temu ren bi parce que ren thème bi autonomisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural kon ci loolu la wax kon yal na leen yàlla jàppale yéen jeunes filles yi ba ngeen mel ni ñun. merci Badiane waaw man bi may commencé sama carrière J'ai commencé en 2011 depuis j'ai commencé j'ai commencé commencé ci ONG euh, ma sur ci euh, projet Pire-Forme en partenariat avec UNICEF et euh, la coopération italienne et j'étais la chargée de mission au niveau de Ziguinchor ñu am partenaire bu association pour le soutien et la promotion de l'enfant De ci la chargée de mission je voyageais beaucoup c'était difficile parce que nous xam une ligue ONG nous nous mettons. Euh, en plus de ça je na ay même pour cette mission là euh, comme chargé de mission parce que quand j'ai euh, j'étais chargé de la protection au niveau du projet Pirform mais sama rigueur ak travail ak sama détermination mon maman may ñu comme chargé de mission mais suis à Dakar Metti woon notre torop mais assumé na sama responsabilité après ce projet là nous euh, un appel à candidature au niveau du ministère de la justice pour jël jël comme euh, des responsables de bureau d'écoute Bobu tamit euh, test bu metti la il y avait tous les magistrats qui réuniront pour ñu une sélection bi metti woon mais après toujours avec ma ambition avec ma détermination ma gagné ko légui ñu indiwaat ma tam Ziguinchor pare naa Ziguinchor ma dellu si waat Ziguinchor ma dellu si waat Ziguinchor aussi di liggéey mën naa wax dans le même cadre maanaam moy protection de l'enfant ak les droits des femmes ak filles nga xamne lo xamne dama ko bëgg trop dama ko yaga bëgg man toujours may nek mën na ne bi may nek collège ba légui man Fini ñuy défendre jigéen ak xalé lolou mom mo nekkoon sama euh, bëgg-bëgg waaw mën naa wax ne tamit euh, actuellement euh, la situation des femmes a beaucoup évolué mën naa wax ne dafa révolué parce que gis nañ né beaucoup de beaucoup de lois ont été votées parce que boy xool légui le droit d'accès à la terre pour les femmes voté nañ ko légui femmes yi mën nañ demander terre suñ ko bëggee lépp dafa am procédure côté bobu tamit ma ngi ñaax état bi parce que sensibilisation bi dafa des parce que fami tay tey xamuñu nan lañuy def pour am terre parce que suuf tamit bo demandé wul mënuñu la ko mënuñu la fekk fi nga tok ñu jox la ko il faut nga def demande ñu mën la accorder benen bi moom mooy euh, jigen mën na transmettre la nationalité à son enfant qui est très importante ah, madame Davo oui. Euh, beneen aussi euh, euh, l'accès au crédit aux femmes mais cet accès au crédit là aussi il y a une insuffisance insuffisance c'est moi Euh, Madame, cette bi Je naa de dafa côté de un de deux femmes ont ñu de financement financement yi faut mu toll est-ce que femmes yooyu ñoom ñu financement est-ce que femmes elles sont capables de bien gérer liñ leen jox du ma wax femmes mais ñenn ñi am nous ñu ay formation mais avons ñu une formation donc ces femmes là nan lañ géré xaalis bi de deux de trois mu ngi wax autonomisation autonomisation aussi autonomisation mais est-ce que nous avons la formation aussi c'est très important l'éducation man dama né tout base de développement bo gis ci pays l'éducation leen jiital éducation def nañ fa lu bari pour ñu mëna développer ñun jigen ni fan lañ toll su su jang parce que jigen goone ne damal jangi jàngi dala nan, ah lolu perte de temps la te c'est très important parce que gis nañ né gis naa euh, avec l'expérience ak analyse yi ma def couple yi nga xamné né ñom ñoom ñoo gën euh, yag couple yi nga xamné c'est des couples je peux dire Euh, boo xam ne ne ñoom ñu ngi doxal seen euh, seen seen foyer euh, bu baax mooy couple yi nga xam ne ñoom jàng nañ xam nañ bon xam nañ dara si jàng daal jàng nañ autre chose aussi moom mooy nuñ koy waxee femmes yi nga xam ne ñoom ñu ngi yëngu ci commerce ñu yëngu ci commerce ñu yëngu ci transformation femmes yooyu aussi il faut ñu aider leen parce que produit yi ñuy defar aussi ñu koy eh, eh, eh, nuñ koy waxee waaw stocké fii tamit produit yi dañ leen état bi war na leen dimbale ñu mën a jël seen produit di ko jaay pour seen koom-koom gën a mun a yokk kon madame Dabo Ah, Je vous ai donc tous écoutés. Nous avons fait un petit tour euh, donc euh, de la table. C'est très important de relever qu'il y a différents âges. Donc nous avons des âges tous différents. Nous avons nos aînés, nous avons des plus jeunes. Nous avons aussi donc différentes donc professions qui sont réunies. Mais l'avantage c'est que vous êtes quand même tous arrivés à un stade de responsable et de cadres. Grâce à vos efforts, grâce à votre travail, vous avez réussi donc à surmonter tous ces obstacles pour pouvoir concilier donc votre vie quand même conjugale, parce que vous êtes quand même tous euh, toutes du moins donc mariées ou en tout cas veuves pour certaines, mais vous avez déjà connu donc le mariage et pourtant vous avez toujours donc euh, cette casquette donc de leader donc dans votre branche, à savoir de responsable euh, donc d'organismes et d'entreprises. Il faut savoir que les femmes au Sénégal, la plupart du temps, elles sont donc dans l'informel aussi. Donc, euh, elles se marient. Après, quand arrive un petit problème donc pour subvenir aux besoins de la famille, souvent elles tombent donc dans l'informel. Elles essaient de, faire des petites tontines, des petites entreprises comme ça pour essayer donc de pallier ce manque par rapport aux ressources financières. Il est important aussi donc de relever aussi que la loi, donc on est tous égaux devant la loi. Donc en réalité, le problème se situe plus au niveau donc de la société, de notre regard par rapport à cette société et de savoir donc comment trouver notre place en tant que femme dans cette société. Parce que légalement, nous sommes tous égaux. D'ailleurs, c'est un droit d'ailleurs constitutionnel hein, qui est dans l'article 25 pour reprendre un peu donc les juristes. Donc la non-discrimination de la femme, nous avons tous droit donc au travail, nous avons tous droit à cet accès donc à la profession. Et d'ailleurs, la loi nous encourage dans ce sens. Mais à travers vos discours, on entend souvent donc la, demande du soutien de votre mari, à savoir vous demandez quand même à ce que votre conjoint soit compréhensif. À, savoir donc vous demandez que votre conjoint donc vous aide quand vous êtes par exemple donc en situation par exemple de grossesse ou bien quand vous avez un travail très très entreprenant qui vous prend par exemple des gardes de nuit pour parler donc de madame la sage-femme et tout ça. Donc il faut un mari qui comprend votre situation, qui comprend la femme que vous êtes. Parce qu'il existe plusieurs sortes de femmes. Vous avez des femmes battantes, vous avez des femmes soumises, vous avez des femmes traditionnelles, vous avez donc des femmes aussi donc modernes. Donc quand un homme se marie, il doit savoir aussi avec qui il se marie Ce qui est important également de relever donc dans votre partage à vous tous, parce que comme je vous ai expliqué, vous êtes tous les invités, donc n'hésitez pas à prendre la parole, c'est que c'est aussi le choix du conjoint qui est important. Parce que lorsqu'on rentre dans le cadre d'un lien matrimonial, on choisit son mari. D'ailleurs, euh, la lutte contre les mariages forcés dit que maintenant même une mineure doit donner son consentement. On ne peut plus imposer un mariage. Même si on sait qu'après, le problème vient toujours de la pression familiale et la pression de la société, où quand vous avez vos oncles, vos tantes, vos mamans, tout le monde qui dit va te marier, va te marier, toi seul, tu as du mal après à dire non. Et souvent, tu es soumise et tu cèdes parce que tu te retrouves en minorité, tu te retrouves faible par rapport à cette pression sociale. Alors, et c'est très important donc de souvenir par rapport donc à votre à votre très beau donc discours donc Madame Dabo, c'est-à-dire qu'après vient le choix de votre conjoint de choisir un mari avec qui vous êtes compatible. Parce qu'on se souvient que si après ça ne marche pas, on arrive à un divorce pour incompatibilité d'humeur. Donc pour les juristes qui sont ici, vous savez, c'est-à-dire qu'à un moment que tu travailles, que tu ne travailles pas, bon le mari après il commence à se détacher parce qu'il a il, est, il est déçu des attentes qu'il a envers sa femme. Alors, il peut le témoigner d'une autre façon, soit en boudant, soit en cherchant une coépouse, etc. Le vrai fond du problème vient du fait que vous n'êtes plus compatible parce que vous avez vos attentes, votre mari ne comprend pas vos attentes, il va chercher après d'autres personnes pour remplir donc ce manque affectif et après ça entraîne donc des divorces, il y a de plus en plus de divorces donc euh, au Sénégal, il faut savoir, ce qui fait qu'après aussi donc les femmes donc ont de la réticence à se, sacrifier professionnellement en se disant est-ce que ce mariage va durer un an, deux ans ou trois parce que maintenant les mariages c'est plus 20 ans ou 30 ans c'est un jour tu te maries, deux ans après, c'est ah, il a divorcé. Donc si pendant ce temps-là, tu te retrouves au chômage, surtout quand tu as fait cinq ans d'études, des, concours de, ministère et tout pour accéder à ton poste, bon, tu es un peu quand même euh, dans la réserve en se disant, bon, un mari, c'est bien, mais aussi c'est ma carrière, c'est ce que je suis. J'ai décidé d'être enseignante, j'ai décidé donc d'être fonctionnaire, d'être responsable, de passer des concours, etc. Donc ça fait partie de votre personnalité. Et votre mari aussi vous aime par rapport à votre personnalité. Parce que selon que vous avez fait des études, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Ça vous donne une culture, une intelligence aussi, un discours. Quand vous avez fait des études, vous avez une culture générale qui va avec. D'ailleurs, même dans les concours d'administration, vous avez aussi donc ce volet culture générale où on vous pose des questions mondiales, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez Ça vous pousse à avoir une réflexion. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui sont plus soumises, qui n'ont pas de culture, du fait peut-être du manque maintenant après de formation professionnelle, parce qu'on en arrive là. Je fais un peu un résumé de tout ça. Je ne pense pas que ce soit manque, un manque de culture. C'est plutôt un manque, c'est une éducation qu'on a inculquée. La femme a été formatée dès le jeune âge. Elle a été formatée pour euh, asseoir un certain comportement, formatée pour vivre, formatée pour euh, être soumise, formatée pour servir un monsieur. Donc c'est ce qui fait. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas de culture. En fait, si vous allez, vous allez, nous qui euh, qui allons vers les populations au niveau rural. Parfois, vous rencontrez des personnes qui vous tiennent un discours, vous vous demandez si vous-même vous êtes dans la vraie, euh, disons, la vraie vie. Parce qu'en fait, elles parlent d'expérience. Tout ce qu'elles disent, c'est parce qu'elles l'ont vécu. Donc, je pense que à ce moment-là, c'est pas une histoire de, euh, de, de pas de culture, mais ni d'être, de ne pas euh, être allé à l'école. C'est tout simplement le fait qu'on nous dit qu'au le départ, la femme doit être ceci, doit être cela et doit être cela. C'est pour cela, même quand nous travaillons, parfois nous avons envie que notre mari soit avec nous, parce que tout simplement, ce mari-là, on l'a choisi tel que vous le dites, mais on l'a choisi à son image. Donc si le mari n'adhère pas, il y a quelque chose qui manque dans l'épanouissement de la personne. Ce mhm. n'est C'est pas parce que tout simplement euh, on a besoin de son, on a besoin de son soutien, mais on a également besoin de nous voir à travers les yeux de ce monsieur-là. Parce que nous aussi, on le considère dans nos yeux, c'est parce qu'on l'a formaté à notre image. Ce que nous voulons, c'est pour cela qu'on a des, des, mariages durent 30 ans, 40 ans, sinon plus. Aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes choisissent leur mari euh, ou choisissent leur femme, mais toujours est-il que, est-ce que ce, euh, cette base d'éducation est-ce que qu'on nous a donné Parce que quand même, le mariage, c'est aussi des compromis, c'est aussi donner une partie. Et c'est un choix qui dit que quand on choisit, il y a une partie qu'on laisse. Donc, on on laisse une partie de soi-même pour prendre celle de l'autre et faire une confusion, une fusion de tout cela. Mhm. Et c'est cette fusion-là qui fait l'osmose du ménage et qu'on puisse continuer. Donc la femme qui travaille, elle a envie d'avoir son mari qui comprenne. Elle a envie de voir son mari la pousser comme nous, les hommes, ont envie de voir leurs femmes les pousser. Ça, je sais que euh, si c'est ni euh, papa ne me diront pas le contraire. Parce que quand ils, ont bien travaillé, qu'ils arrivent et que leur épouse leur dit, mais dis donc, ton travail, ton émission, c'est formidable. Ils voient l'admiration dans ou dans les yeux de sa femme. Ce monsieur-là est satisfait et le couple continue à être ensemble. Voilà ce que nous demandons aux jeunes. Nous parlons bien sûr de l'autonomisation parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a beaucoup de monde autour de moi. Mais je pense que l'autonomisation des jeunes, c'est très, une très bonne chose. Mais aussi, il faut que les jeunes croient en eux, comme l'a dit madame, tout de suite, et que les jeunes pensent qu'il ne faut pas attendre à avoir un salaire. Moi, je n'ai jamais eu de salaire. Hein, vraiment, j'ai trouvé, j'ai navigué, je suis parti dans beaucoup de pays, mais franchement, je n'ai jamais eu de salaire. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je me suis débrouillée. Ah, attention, j'ai eu deux ans de salaire. D'ailleurs, j'ai demandé si je pouvais avoir une retraite. On m'a dit, Marie, avec deux ans, comment, qu'est-ce que tu vas avoir <laughs> Deux ans de salaire, qu'est-ce que tu vas avoir Donc, je pense que on peut vivre avec son travail, c'est créer son emploi.

la leen waroon ci seen biir kër am na jigéen ñu nga xamante ne lu min daan deful ci biir kër gi du sotti min daan mi mooy def lépp taaj añ togg añ ataaya ji seen jëkkër di naan sax min daan maa koy xiim ñëw jox leen ak seen jëkkër bu ñu ragalul woon yàlla bu seen jëkkër ne raxasal ma sama tànk min daan may tàngal ndox mooy indi paan ba mooy indi lenqali ba bu ñu ragalul woon yàlla ne ko raxasal ay tànkam man am na li may wax xam ngeen ci bu baax li may wax am na jigéen ñoo xamante ne lépp ci biir kër gi mbin mbindaana koy defar balaa ngeen di ñëw sax maag Cheikh ñu ngi ci doon wax am na jigéen ñoo xam seen linge de corps ak seen linge de corps u jëkkër sax mbindaana koy fóot ma leen di laaj ndax loolu jaadu na wala jaaduwul. Hmm? je peux. waaw waaw. ma kii madame daf ci bëgg a sànni kaddu. <laughs> man euh, damay fàttali tuuti rek de. Hmm. Euh, dafa am fu ñu jóge fu ñu jóge mooy dañu am ñun ñëpp ay éducation dañu am culture de base mhm. éducation de base mhm. tey tey dafa am ñaari génération yu fi nekk muy suñu ay yaay ak ñun ñii mhm. ñoom ni ñu daan dundee euh, loolu ak ñun bokkul man tey je peux dire à 42 ans laay doog a marié mais damaa gëm sama bopp gëm li may def di ak ku ma ciy àndal ku nekk tamit da ngay nangoo gëm man li ma gëm parce que concession la Ndeye Marie wax léegi mais concession boobu ci ñaari côté la. Mm-hmm. donc ñun dañu nekk xale di jàngi école. ngay wàcc midi war a jàngiwaat trois heures sa mm-hmm. yaay ne la yaay togg añ. Mm-hmm. ndabu raxas yaa fa. mais def nga ko. dañu dem kañ léegi ñun ba ñëw màgg ñëw ak modernisme bi ak autonomie bi léegi sa ay doom yaratuloo leen si. buñ ñëwee ñu ngi ci internet bi ñu ngi ci télé bi ñu ngi ci leneen li jàngal xale bi dara mais min daan bay fa nekk pour loolu. donc ñun bu fekkente ne culture boobu ñu amoon dañu jàngal da ngay togg da ngay raxas boo demee ba am jëkkër tey boo nee da ko bëgg a fàtte da nga dugg ci leneen loo bokkul. Hmm. te ku ànd wàcc sa ànd ku nekk fekk borom ci àndam ànd boo yeeg fekk fa boromam. mais ñun ñii pour nga yéeg sa bopp estime de soi bi ñuy wax fonk sa bopp pour nit fekk la si il faut que yow nga gëm li ngay def il faut que nga respecter sa bopp. loolu nag moo fi amatul tey hmm. jii ñuy wax nii. Hmm. nit ñi léegi déjà parce que maa ngi liggéey maa ngi wàcc man am na ay temps sama sama lal laa la wax bureau laa ko def. ci ay goudi ngay liggéey parce que juste sa patron ngi lay yoxu am nga loy bañ yaa ngi ci délai te mu yoxu la tu es obligé nga def sacrifice mais il faut savoir faire la part des choses sa jëkkër waxtaanal ak mom li ak li ak li ngeen d'accord ci lenn mu lay jappalé te tamit kaso kanam la ko ci tej rek mu xam ko dem na ba xam nga ne ki kat tay li neexu ko nga xam leneen looy def def naa lépp daal si ñun la mais ñun tey ñoo ëpp chance suñu yaay yii di wax parce que tey jàng nañu sore nañu am nañu possibilité am nañu ouverture avec le monde extérieur ñu ngi gis ñu ngi waxtaan ñi ñuy ñi ñuy sëyal nga am koo xamante ne mag na la torop mais ñoo ciy ëpp yërmande man déjà sa que man samay liggéey du may yenn yi j'avais opté la polygamie sama yaay ne ma yow tan nga gis ci borom jabar mané ko awma jottu yoré gor lundi ba vendredi duma ko man xulo bi day je té ki may soxlo tamit bëgg si muy tukki bu mu ñëw tout le temps parce que mënu si je m'étais mariée peut-être tôt dana don dem dan mais en ce moment aussi ce sera à mes dépens parce que vais def ay concessions yu dul jeex ba xeyna sax duma ma je ma toll tay donc lo gis lu nekk rek defé na né nit ki dang koy poser contre bi ak pour bi euh, le pour ngeen waxtaan si yéen ñaar ngeen déggoo concession ñaari côté la mais tant que duñ koy def mais nañu fàttaliku ne dafa am fu ñu jógee parce que tey da ngay toog nga dégg famille diw image suñu ay famille la famille du papa ak yaay de famille ay maamaat la da ngay toog ñu ne famille diw kii de moo gën a bon ci xeet bi kii de nangam ak nangam pour temps valeur yooyu suñu ay waajur amoon ñu ñu di koy joxante di koy joxante ba si ñun lu tax ñun ñu bëgg bon ci suñu ay askan il faut que nit ñi dellu si waat mais terewuñu liggéey tey jii tey yaa ngi marié am sa borom kër mais xamal sa limite tant yaa ngi xam sa limite doo tooñ kenn tant yaa ngi am sa estime de soi doo tooñ kenn parce que nit ki boo fonkee sa bopp dinga bañ ku la tooñ mais bu ñuy defee noonu di waxtaan ak borom kër yi lii daa Dabo wax léegi ay mariage deux ans la parce que lan la ñu teg xëy na intérêt bi la parce que léegi nit ñi muñatuñu mais koo muñalul moom itamit day xool ne man itam fii laay xëcc du la muña te borom kër nga nee naa leen fii nee nañ ma ñoom bàjjan dañu ma naan euh, yow léegi góor nga parce que gëj naa ci 8 mars maa ngi doog a ñëwaat ci 8 mars Cheikh moom ma invité parce que dañuy wax léeg ma ne yéen da ngeen di fontu baal leen ma nag jigéen laa ni yéen mais léeg il faut que ñu xoolaat suñuy bopp parce que dañuy toog bu ñu waxee ñu ne violence faite aux femmes. mais góor yu baree ngi nii di génn seen néeg guddi duñ fa fanaan te ñamewuñu ko wax fenn lu tax parce que ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp suñu ay doxalin tey jii tey waajur boo ci jël màgg nga ak moom am na lu ko doon métti musul yëkkati bagage am dem léegi sëy boo gis benn ñaar mu yëkkati bagage am génn mbedd mi yëpp xam nañu lu xew il faut que ñun ñu xam ne am nañu fu ñu jóge am nañu culture am nañu base am nañu référence loolu la ñu war war a delloo si ginnaaw defe naa bu ñu ko defee du ñu am benn problème ci suñu liggéey te tey jigéen exposé na de tell sorte que boo ñàkkee fayda tuuti ci li ngay liggéey góor ñi baal leen ma ñoo lay band bandee lu leen neex ñu def la ko suba boo taxawee yow bëgg revendiquer say droit wala défendre sa liggéey duñ la faale parce que da nga leen wonoon benn ñàkk fayda il faut que ñun ñu xoolaat suñu bopp man loolu laa amoon lu ma ci sànni ngeen baal ma je pense qu'on va faire un petit tour pour savoir justement comment maintenant vous, vous avez réussi à allier les deux et quels sont les conseils que vous pouvez donner donc à nos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent actuellement. Voilà euh. madame Aris de commencé dafa un témoignage je suis ne dama koy def madame Aris eh. parce que madame Aris je ko soxlo 10 heures je na ci parce que nous, ñun amuñu heure liggéey parce que képp kuy sur ci violence rek amoo heure mais bima eggé kër madame Aris man ko fekk mi ngi tek pat lal table yara fera di passer yere jëkërëm di passer ay yëreem koku mën nañ ko am légui ci gamono bi ci ci xalé amul man mi di wax ak yeen ma dakk dox man ma dakk dox mbedd mi lañ ma tuddé mais nak ñom ñii mën nañ ma témoigner sama yére ma koy fóot ta ma koy passé te dimanche amagul goro. maay toggal sama jëkkër mu lekk waaw kon nag sëy aussi dafa am nuñ koy sëyee am li des kon ma paas kàddu gi madame Dabo madame Aris waaw. <laughs> jërëjëf Badiane defe naa ne euh, sama rakk ji wax wax na lépp parce que nit day am modèle day am royukaay. ñun ñu judd ci àll bi màgg ci àll bi de booy sey liñ lay jëkk yeb man par exemple sama papa lim ma yeb nee na ma am nga wujje de ah ma ne ko papa yeggagu ma nga bëgg maa takkal wujj mu ne ma waaw am nga wujj ma ne ko kan mooy suma wujja comme nga ne am naa te waa ji nee na moom yorewul jabar mu ne ma sa yaay mii toog mooy sa wujj ma ko sama yaay mooy sama wujj mu ne waaw yaa ngi sëy dinaa xam ndax moo la jur wala juru la mu ne sa ndey de masul génn kër gi masul fay te sama service mu ngi dox normal yow nag nga ne fonctionnaire nga moom fonctionnaire faro la waaw mu ne waaye boo melee ni moom di nga liggéey sa liggéey tubaab bi nga dugg te say jëkkër du la yàpp te man duma am gàcce man mi la maye. ma ne ko ah bon loolu mooy wujja ji mu ne waaw parce que wujja nawle la dafa liggéey si war a yóbbu yow nga liggéey si war a yóbbu mais kii ma wax ne sa wujja royukaay la danga ko war a roy nga mel ni moom loolu nag mu yóbbaale ko effectivement li Fatou wax dëgg la c'est-à-dire que léegi man may wax toujours ne développement am na côté positif am na côté négatif malheureusement le côté négatif bi est exploité parce que la communication interpersonnelle manque dans les familles Il n'y a plus de communication ku nga ne ki li man effectivement j'aime bien faire le linge j'aime bien faire la cuisine j'aime bien servir j'aime ça mais j'aime partager de telle sorte que man sama liguey metti na mangi à commencé en octobre 2011 laa commencé liguey liguey quatre ans d'ora a bon tant que a ngi célibataire, célibataire y a pas de problème hmm? euh, Hein? déedéet Hein? de voilà, 1900. 1900. Euh, a diplôme en 1970. commencé ligué en 1971 euh, à Tambacounda. célibataire Tambacounda un peu célibataire à à Kolda. après le grand amour est venu mais madame d'abord, c'est important nit ki bi ngay sey ak mom da ngay set d'abord ndey na bok euh, conception c'est important est-ce que sen gis-gis ben la est-ce que vraiment idole am nga sa idole la c'est important té loolu communication mo lay jox ngay waxtan ak nit ñi xam nan la bëgg lan la bañ nga set est-ce que Mengo na ak yow li nga bëgg ça c'est important amna nak hypocrisie ci ki ki biir amna ñu nga xam buñ lay wut dañuy neub sen djiko amna na yi tamit dañuy neub sen djiko mais euh, sey dafa war la lal euh, franchise égoïsme amul place ci bir sey bo buggee mu yag amu fa place on doit partager man kii nee na dafa tukki man tukki na be son be sama jëkkër bëgg na ma mais oui, madame mon ne pied la route le bantou tuddee Mon pied la route Voilà. mais me ma ça me pergame yëpp ci téléphone lay petit je je téléphone tous les jours te cadre bu gën a neex dina génn ki sama gémmiñ dem ci moom waaw parce que xam nga sëy yooyu yaa ko ah, c'est une fleur qu'on doit entretenir c'est un arbre qu'on doit entretenir boko entretenir du dem fen day koy entretenir dama koy buma aussi les petits cadeaux luma sama ko ko bi la parce que pendant mon absence sama devoir lima waron def defu mais mu ngi rêvé dina combler bu cédé yalla buma ñewé femme soumise man sama koy sama ci kenn mu maa koy defar samedi dimanche je ngi sama kër di moigne, di araw di soussel, di def lépp di togg j'aime bien faire la cuisine parce que dama ko aussi j'aime bien faire le linge comme elle l'a dit parce que les effets intimes de mon mari ken du ko laal maa koy fóotal sama boppam maa koy defar sama negu ken sama bon masul defar sama chambre à coucher masul am parce que ñun dañ ñu miinal yeewu 4 heures du matin 5 heures du matin nga def say li nga wara def julli ak yep à temps mais communication santé mo gëna mit wax na len ko monter garde ak yoy. mais bu may monter balaa may monter garde li ma wara def yep dama koy def dafa reer tek neexalaate daal di léeg mu gungé ma ba garde ba tok waxtan ak man bu féké awma malade mu ñibi. mais mo paré garde rek ñibi. kër

monsieur Banti, ordinateur ordinateur les enfants même n'ont plus personne pour répondre à leurs préoccupations alors que wow, une tablette alors que la période adolescente madame Dabongidi, c'est la plus difficile des périodes aussi bien chez les filles que chez les garçons les filles ont leurs préoccupations déjà la survenue des règles c'est des perturbations avant, on te préparait. Il y avait la tante qui était là-bas, la grand-mère qui était là, qui préparait le terrain avant l'arrivée. Bougnué, donnait que ben choc. Parce qu'il y a la communication. Actuellement, ça donne fou mouké qui est Des perturbés, un choc. Parce que khamoul. Mais d'où mais ça Les grossesses précoces, moi je dis toujours, les parents ont 90% euh, de responsabilité. Parce que doit avoir ça donne amuloo jotam bu amee préoccupation ñemewu la ko wax bu la waxee amuloo jot pour tontu ko les papa n'ont plus le temps kenn amatul jot faat wax na ko mbindaan ba mbindaan ba mbindaan ba mbindaan bi loolu moo tey góor ñi di takk mbindaan parce que da ngay dem bon boo absenté sa waa du ko sentir parce que mbindaan bi moo koy servir guddee bëccëg yow lal rek peut-être que cette bonne la même Morgan Fenen encore <laughs> waaw il va expérimenter ça non xam nga waxtaan waxante dëgg ci la mais il faut ni ni ko ndaw si waxee il faut ñu delloo si seen suñu xel Senghor ah, il faut s'ouvrir tout en euh, Il faut garder ses racines faut garder ses racines ñun africaine lañu mënuñu nekk leneen lu dul africaine on a nos valeurs gis nga waji numu jang jang jang no len noo leen vive vive bugg a vive euh, kii euh, vive tubaab bu demee keur moromam fekk fa jabar di soumise di di neexal ak di ray ak di di defar déjà sa cote mu ngi commencé ko mu ngi koy ñé bésu dimanche way way nañ ko consacrer à nos familles tok waxtana suñu jëkkër toppatoo leen apaiser leen échanger man même temps yi ma daan nekk ci 15 ans yépp sama rapport ma ko defee balaa may gën a jox ko sama jëkkër j'ai enseigné pendant 7 ans à l'école des agences sanitaires mais léeg-léeg guddi da ngay am devoir man dama daawoon enseignement ma ñëw du fekkaat enseignement bu ma ñëwee di préparer yooyu bu ma gisee ne mu ngi jaabante eh, di dem di ñëw ma xam ne am na lu mu soxla je ferme tout je vais d'abord répondre def sama devoir d'abord bu ma mënee ñëw continuer la libanuma ko ou bien bu ma ko 4 heures du matin ma jóg def li may def liguey mais il faut une option il faut une option mais bu fekkee ne da nga bëgg nek ben côté rek dina am bu yàqu waaw té goor gu nek li jabaram togg mo gëna neex ci li muy lekk té bu démé fu mu manti demit mo tax suñu doomi dañ leen wara jàngal togg góor boo amee boo yoree biiram yor yirim fu mu dem dellu si waat man manti xeme mit day dellu si waat wasalaam jërëjëf euh, man damay dellu si waat rek ci difficulté bu ñuy wax ci jigéen buy liggéey ak devoir conjugal euh, am na lu ma ci waxoon tam ndax man dama ne jàngalekat laa te jàngale dafa bari liggéey ci biti ak ci biir kër gi bare na liggéey torop yaa ngi sëy léeg-léeg nga nekk sax ak say goro ci biir kër googu loolu tam beneen wax la nekk ay njëkke ci biir kër googu ñoom ñëpp dinañ fa toog ku nekk croiser les bras ñu ngi xaar kii sëy ci kër gi bu wàccee mu ñëw liggéey liggéey boobu bu paree moom tam mu dem defaat beneen liggéey te mu ngi euh, war mu war a liggéeyal jëkkëram yooyu yëpp nga fa loolu difficulté la bu jigéen di jànkonteel jigéen buy liggéey di jànkonteel da ngay gérer humeur sa doom yi gérer humeur sa jëkkër gérer humeur ñeneen ñi nga dëkkal metti na waaye nag man dama ne yow yàlla fii la la natt yow nanga ko bëgg soo ko bëggee rek mu yomb ci yow def ko day yomb ci yow parce que nga xam ne lii bëgg naa ko dugg naa ci bëgguma ci génn kon na ma neex rek naa ko bëgg rek ma def ko bu yàggee mu jeex man de wax dëgg yàlla man léegi aw ma jëkkër bu may surveiller de man mii <laughs> ma daal moom metti woon na torop ndax man xëy na ne dama dëgër bopp dëgg la parce que ci lu ne ay dugg ci classe yi laa njëkkee woon jóge fa dem alphabétisation nekk ak ay ONG projet PAMES yi kii euh, enquête si yi yëpp ci biir Casamance bi man maa ko def. am na ci boo xam ne sax maa ngi euh, ëmb ba diis may dem di ñëw euh, bi may am doom dañ ma césariser ndax dafa compliqué woon torop génn ci loolu. nekk ci alphabétisation bu njëkk ba fii IF bu ñu daa IDEN lañ ko doon wooyee ma nekk ci loolu tam ba yàlla def mu am fu ñu yóbboon sama jëkkër ma ànd ak moom nekk fa foofu moom gan laa fa ma fa woon def dara foofu moom liggéey wàcc si ñëwut toppatoo <laughs> waaw boobu moom neexoon na lool waaw eh, awma awma woon jànq damay wàcc ñëw def sama liggéey fajar lay jóg su may cere damay jóg fajar ma mooñ su ma mooñee dem école bu ma ñëwee ma tey pour reer waaw eh, loolu yëpp def naa ko ba ma ñibbi fii nekk ci loolu waaye ñun tey li ñu war a def mooy ñun ñu éduquer suñu doom yi ndax ñu mën a vivre ensemble couple bi mën a vivre ñu mën a dund ni ñu mën a war a def ñun éducation bi ñu amoon ak suñu jëkkër yooyu éducation yi ñu amoon dañ ko war a ñun dañ ko war a améliorer ñu seet loo xam ne baax na ñu jël ci yëpp ba loo xam ne day indi gàllankoor ñu ràndal ko ndax xale yi ñu mën a sëy xale yi mënatuñu sëy te loolu wax nañ ko fi ñu ne ci ñun la ndax waxatuñu dara suñu doom yi éduqué wuñu leen nii lañ leen seetaane mu gis kële fale ne bëgg naa ko kee gis ko ñu ne bëggante nañu ñu daal di kii te sëy du caaxaan xale yi nag ñoom dañu yaakaar ni ngoro bi yeeg yooyu neex na sëy bi noonu la war a continuer te fekk du noonu kon xale yi nañ leen préparer ñu préparer leen pour ëllëg seen vie de couple bi ndax ñu mën a ànd ci harmonie suñ ko deful rekk ñu ngi jëm ci lu ñu xamul comme yàlla may nañu possibilité ñun ñii man su ma jëlee exemple ñun ñii liggéey nañu ñu sëy mu am lu bëre lu ñu traversé ñu xam ne lii baax na lii baaxul ku góor bëgg na lii waaye bëggul lee ñun mën nañu waxtaan ak suñu jaboot bu ñuy liggéeyitam mu am lu ñuy defee waaye boo solee soloo sa jëkkër solu ngeen génn kër gi bu ñëwee ne la sax jox ma lii nga ne ko ndax yow amoo loxo demal jël ko loolu du sëy nañu sëy loolu lañ ñu digal dañu war a sëy jigéen lañu ñoom góor lañu kon na yow kooku génnee xaalisam ne bëgg na la yow mi nga ne bëgg nga bu ngeen bëggante waaye ku jigéen ki du indi ku góor ki mooy indi xaalisam mu jël la encore sa kër baay nga dem ci këram nga dem sëyi foofu kooku yow war nga bég moom tam war na bég

donc je dama juste répondre à une certaine préoccupation de Cheikh Tidiane qui lors de sa présentation a mis le focus sur la question de la confusion des rôles parce que confusion des rôles bi mooy faral di indi li nga xamante mom moy taux de divorce élevé bi parce que dañu mënul allier li nga xamante mom moy vie professionnelle ak li nga xamante mom moy vie conjugale té lolu pour mo mëna nek il faut que ñu xam ñun ñun ñoy kan fan lañ la suñu cosaan def ci ñun suñu processus de socialisation bi nga xamantene mo tax ñu doon ku ñu doon tey est-ce que parce que dañu wara wacc lool yépp juste parce que nous sommes des femmes leaders dedet, man gawmu lool parce que jigen même bu fekkee ne am nga de hautes responsabilités waaye avant tout jigen nga yaay nga soxna nga nek nga ko xamantene dafa am ku ngay partager sa vie ko xamantene ne dafa am lu muy def ci yow am na solo ak diplôme yu ñu mënta am bu ñu egsee au seuil de la porte ñu xam ne nekkatuma la grande dame professionnelle je suis la femme au foyer dafa am solo mais la ñuy constater de nos jours da ngay jigéen boo xam ne day won jëkkëram ne ko man dama am salaire man dama am ñi nga xam ne ñu bootu sama ginnaaw dafa am ñu ma gëm dafa am ñi ma wóolu ba tax na finalement yow joxatoo cër joxatoo gëdd sa jëkkër bi nga xamante ne ëllëg moo lay seedeel parce que nag ñu ñu jàng jàng jàng nu ñu nu ñu mën a am yeneen culture yoo xamante ne tey mooy confronté wu ak suñu réalité culturelle nañu xool ne ñun dañu nekk jigéen yoo xam ne ci diine lañu yare ci diine lañu mooñaale te dafa am culture boo xam lañ def si ñun dafa nekk loo lo lu am solo jigéen ñi foog ñu bay ci xel bu baaxa baaxa ba. goor yi amuñu problème en réalité parce que badjenu gox souvent elle me fait la reproche me disant que damay far ci goor yi du caageen damay far ci goor yi mais il faudrait que ñun jigéen ñi ñu revenir à de meilleurs sentiments pourquoi di nga gis goor bo xamné pourtant intellectuel jang na fu jang yem mu ne naa am yërmande ci sama soxna parce que gis la da fay xey day sonn fay goudé wacc aladi as comme ni ko faral di wax bu xeyé ci suba ne xaaral ma jàppale soxna si topatol xalé yi man ma lalal bi wala ma dem jindi pain wala ma def ni mais souvent ñun euh, man je me dis suñu ingratitude peut-être féminine mo ñi indé des fois ñi def ay erreurs yo xamné moy tax góor yi jàppale bu ñu warona a mu doon li nga xamné moy problème parce que da ngay dégg jigen bo xam day génnee kàddu boo ne bu xawa ñagas ne ko yow lan mo tax la lol lal bi parce que aussi y a une façon je pense de parler parce que ñun mënuñu jël bëgg adapter culture kenen ñew diko du culture kenen ñew diko imposer nañu fexé négocier ak li nga xamné que suñu nous parce que aussi nañu waxanté dëgg suñu ci sa jabar ko parce que dañu japp jigéen moy ki nga ne rek ci le conseil que je peux donner d'abord aux femmes nous ne amaguñu jëkkër ño xamné ñu ñu li nga la vie professionnelle comme sama sister bi nek sama nga fexeel ba choisir l'homme qui te convient am na solo la convenance dama ciy intervenir bu baax a baax a baax di ci teg loxo non bañu bul ut ku coofe rek waa ji mën na coofe mu doon aussi ku la convenir koo xam ne da lay jàppale daf lay gunge waaye bu fekkee ne aussi am na koo xamante ne muñ ci ci vie ci vie professionnelle mais si am na jëkkër na xam ne comme sama yaay ni moom lawit di ko wax jigéen noo jang jang. jàng jàng jigéen noo am am xam-xam xam-xam les ne aussi yañi sey soxna nga te bo excès si buntu kër gi nga fexé ba sa diplôme yoy nga am nga teg ko ci souf dugg ci kër gi sey ku nga ku neexal ay cadeau nangam sangam parce que c'est selon les cultures am na ñoo xam ne dañuy dañuy jàpp ne raxas tànk mooy li nga xam ne jaamu la mais man dama jàpp ne raxas tànk du jaamu mais à travers raxas tànk boobu dafa am affection boo xam ne moo ciy dund mu lay xool ci bët nga koy xool ci bët di ko raxasal ay tànkam di ko nebbe nebbe di ko bann bann dafa am solo bu baax a baax a baax merci beaucoup. il aussi ñu fàttali leen ne temps bi ñu mayoon eh, daf dafa jeex leneen li yëpp bonus la dañ leen di wis. waaw damay. Je vais euh, résumer damay résumé ci damay résumé tuuti ci li euh, madame Aris wax ak euh, madame Dabo Mme madame Aris nee communication je dirais plutôt communication relationnelle dafa manquer au sein des couples couple couples, sont les plus te quel que soit le niveau d'instruction de la femme même le code de la famille je parle sous le contrôle de madame Dabo même le code de la famille l'homme est le chef de la famille donc le code de la famille n'est pas loin de notre euh, religion Madame religion catholique religion musulmane les coutumes et pratiques traditionnelles donc moo tax boni aussi da ngay droit am nga droit mais aussi tu as des obligations te une obligation moi un devoir merci Nous avons fait un petit tour euh, donc de table encore une deuxième fois pour approfondir le sujet. Il faut rappeler quand même qu'on parle donc professionnelle. Euh, d'obligations professionnelles. Mais le travail, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des jours de congé, il y a des vacances, il y a des jours de pause. Donc pendant ce jour de pause et de congé, si votre mari vous a laissé quand même travailler, mais pendant ce temps-là, faites vos obligations donc de femme. Peu importe le couple, que vous soyez moderne ou traditionnel, s'il faut laver ses pieds en tant que femme traditionnelle et que ça lui fait plaisir, ça vous convient, faites-le. Si vous êtes moderne, allez vous promener à Plaza ou bien au Cadandomagne, mhm. allez boire un verre, cela dépend pour garder et entretenir cette flamme. Parce que nous, nous travaillons, mais aussi l'homme, c'est pareil. Hein. On parle donc de parité et d'égalité. Autant l'homme aussi, il travaille, autant aussi quand il ne travaille pas, il doit aussi un peu s'occuper de sa femme. Donc autant aussi la même chose pour nous les femmes. Lorsqu'on a la chance et qu'on travaille et qu'on a un mari aussi qui comprend parce qu'il faut, comme on dit aussi, donc éveiller les consciences. La femme évolue. La femme de 2000 n'est plus la même femme qu'il y a en 1980. Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus les hommes qu'avant. Il faut dire aussi qu'il y a la crise économique qui est passée par là. Donc on est bien content d'avoir deux salaires plutôt qu'un salaire, surtout que les frais de scolarité, les frais donc de la maison augmentent, les loyers augmentent et tout ça. Même s'il faut faire un prêt à la banque, on est encore plus heureux de dire on a deux salaires qu'un seul salaire pour avoir encore une meilleure vie. Donc, tout ça, comme on dit, c'est toujours le couple qui discute entre deux yeux avec une franchise. Ce n'est pas parce que vous voulez un mari que vous allez aussi donc euh, ne pas dire certaines vérités, à savoir que si vous êtes femme médecin, forcément en tant que femme médecin, des fois vous aurez des urgences médicales. Donc ça aussi, il faut que le mari comprenne la femme qu'il a épousée. Et aussi, comme j'ai expliqué toujours, relation professionnelle, euh, à minuit, à certaines heures, quand vous ne travaillez pas, là aussi, c'est l'occasion donc de, faire plaisir et de faire votre devoir conjugal. Parce que lorsqu'on retrouve encore dans le cadre donc de la loi, la loi dit, rappelle donc les devoirs donc de, des époux, hein, aussi bien pour l'homme pour la femme, devoir de fidélité, devoir donc de s'occuper aussi donc des ménages, des dépenses euh, donc de ménage, qui est donc un devoir commun, que ce soit homme ou femme. Vous êtes tous les deux responsables des dettes du ménage. Donc ce n'est pas seulement sur l'homme, sur la femme. La, culture, les mœurs, etc., nous sommes tous d'accord. Nous respectons notre mari, que notre mari nous respecte et comprenne aussi donc notre cadre de vie et notre choix. Je pense que c'est ça, hein, Badienne. Mm, donc aussi bien, il y a une femme moderne qui est là, il y a une femme plus traditionnelle qui est là, mais on s'entend toutes les deux très bien. Aussi bien mon mari, lui, il va savoir que bon, laver les pieds, là, je ne sais pas si madame sait le faire, mm. mais <laughs> peut-être qu'il saura me contenter d'une autre manière et moi réciproquement.

madame Aris wax na fi ouverture enracinement defe naa loolu mooy suñu mot de fin mooy ñun ay africaine lañ qu'on reste africaine tout en s'ouvrant ci yeneen euh, nature ñeneen ñu nga xam ne duñ ñu yàqal dara c'est pas parce que dañ koy jël ba mu yàq suñu lii donc suñ si jëlee ñu ñu ñu xam fan lañ ko war a yemale pour mën a indi suñu bos mu continuer affaire bi jëm kanam parce que li ma xam si jigéen mooy boo demee defi sa liggéey beneen buy indi ressource si famille bi da nga war a ñëw xool ressource boobu soo ko dugalee naka la la famille boobu di jariñee suba loolu moo tax ñu bañ a yàq dara bu nu demee liggéey fële bu nu ñëwee liggéeyaat fii rek comme sa xale yi jël exemple boobu dem éducation moom dama koy bàyyi parce que xam naa ne képp kuy jigéen yaa ngi éduquer sa doom waaw ñu buggoon bëggoon jërëjëf euh, Touré Mandomori léegi nag nga pas kàddu gi may Maimouna Adja Maimouna Gueye <laughs> jërëjëf Badiane may remercier euh, Cheikh Cissé ak euh, personnel bam bi mu àndal mhm. may ñu tey occasion ñu waxtaan ak suñu ay mbokk xëy na tey boo woote woon jigéen ñëpp danañ ñëw waaye ñëpp duñu mën a wax ñuy jégalu nag xëy na ci ay kàddu yoo xam ne tegginuwul ñu ciy jégalu xam ne ay nit dong lañu Euh, di ñaaxaat jigéen ñi ñu xam ne muy neex muy naxari àddina di dem jigéen dong la ñuy mën a doon ñu delloo si waat njaboot gi ci yoon yar leen parce que jigéen guy liggéey gu nekk defe naa pour sa doom jël exemple ci yow day copier lépp li ngay def bu fekkente ne rafet na yow da nga koy may jom pour suba mu gën a mën a dem euh, de l'avant loolu laa amoon lu ma ciy sànni di ñaan yàlla mu may ñu ñu teewewaat ko ay déwén yu bare bare jërë ngeen jëf Merci Badiangor. Merci groupe GMS. Merci Cher Tidiane Cissé. Mais remercier jigéen ñëpp ñu ma fi fekk Qui euh, bi plateau bi riche na ça a été instructif man de jàng naa ci lu bari li may wax xale yi rek euh, toujours ouverture mais enracinement nit qui da ngay xam d'abord koo doon nga gëm sa bop, gëm li nga doon c'est très important boo vous ba fàtte yow li nga don. te Euh, tout doit être réciproque tout doit être partagé tablette yeeg euh, télé bi euh, portable yi ko wàññi dans la famille ñuy waxtaan waxtaan réeroo amul ñàkk waxtaan a am il faut nous rétablir waat loolu ñuy waxtaan di diso. di wetcho. Lolu, mom dina gëna dëgër aussi jigéen ni nañu mokk pooj <laughs> mokkaleen pooj na mokk pooj té nañu euh, dawal mm-hmm. ak compréhension lay wax ñëpp merci bien man limay bëgg vraiment un mariage c'est deux personnes mm. c'est deux familles c'est deux communautés si j'ose dire ku ci nekk da ngay def sa concession mais li may wax wax nañuy lépp ci yarum jigéen mais góor tam dañ leen war yar ci parce que le monde évolue dëgg la am tradition mais les choses changent

souvent bo demee bitum do nga gis fa sa dombu gor wala nga gis fa xale yu góor ñuy sonné parce que amna li nga xamné ne inclus que ñu li nga xamné c'est nos valeurs sénégalaises ñom lañ fa yor par exemple dañuy wax né wa xalé bu gor warul raxas bool xalé bu gor warul fóot wax xale bu gor warul togg mais amna ñi nga xamné dañuy dem ba Corée di woté sen jabar yi wala sen ki wa ni naka nañ koy toggé omelette sax mënu ñu ko def c'est pas normal. On ne les aide pas. On les aime, on les adore. Il faut qu'on les prépare à une vie autre. L'église, c'est un contrat qui, lie, qui est lié par des sentiments. Le mariage, des sentiments, nous sommes que kanam donc moi, mané buñu ne bu yar jigéen ñi buñu faté fàtte ñi parce que bu jigen ñi ñi yaro té góor ñi yaruwuñu affaire bi du mëna dem c'est le contexte qui le veut comme ça c'est le monde qui évolue évoluons avec le monde dans nos racines dans nos valeurs mais également on on s'ouvre dans ce cas-là il faut voir ce qu'on peut prendre de l'autre côté qui est bon pour que nous puissions avancer merci euh, man maa ngi gërëm groupe Média Sud ci temps bi ñu jox nii ñu waxtaan ci wii mars bi ñu waxtaan ci affaire jaboot euh, li ma waxoon ci yar rek ndey mari ci loolu la dellu si nañu ñaar yar ñaar yi te ñun jigéen ñi ñun defe naa ñun la gën a war parce que suñu doom yi ci ñun la ñu gën a nab muy ku góor muy ku jigéen ñun la ñuy gën a waxtaanal kon nag ñun dañ leen war a yar ci yoon bu baax bi ndax ñoom ñu dimbale leen ndax ñu mën a sëy comme li ma waxoon rek euh, dëgg la Ndeye Marie ñu ne suñu doom yi buñ bu ñu bale te kat bu ñu fi taxawoon ne dañu bëgg a góor buy bale pour ñu fay ko <laughs> rang la fajar la ñuy ñëw ñu rang te bu ñu waxee ñu ne góor du bale baaxul kon nag euh, man foofu lay daanelee euh, di gërëm ñëpp ñi fi nekk yëpp di leen gërëm parce que tay, ku nekk jëlee nga fi xam-xam bu ndaw boo xam ne ëllëg yow tam mun na laa jëriñ te xale yi maa ngi leen di ñaax ba tay, sëy leen merci jërëjëf Ndeye nee na nangeen ngeen say gune yi <laughs> kon nag say leen ah ma demande mu lebe euh, man ñaari ñaari bunt laa leen di waxtaanal. parce que mm-hmm. koo gis muy euh, toog si biir néegu sëyam ba bay compter ne def naa trente ans quarante de mariage dafa am fu mu ko teg. Mm-hmm. ñaari yëf naka ndaw yi euh, mooy benn bi ngeen def planning de réunion ci biir famille bi. Mm-hmm. ñaar boo demee boo ñëwee sànnil dee yi ku nekk mu for sànni dee bi mooy lan bàyyi nga ko ci kër gi bàyyi na la nga dem liggéey ba nga dellu si euh, engagé conversation naka mu demee ci kër gi. mu ne ak ak muy def comme ñun nu ñu def ñun dañ bu sangam ni fi la jaaroon li la def la def ñun tam ci dëkk ta journée waxtaan ñëw il faut apprendre à vivre dans le contexte dans lequel on se trouve Hey dund bi il faut vivre la vie au jour le jour parce qu'elle vaut d'être vécue chaque instant il faut vivre ces moments-là Si da ngay sa xol tax ba sa xol di metti multiplier par zéro par zéro égal zéro tu ne vaux plus rien man li la amlo am lo xamné mom la len di deunk pour que ngeen di minimiser le pourquoi ça parce que les jeunes d'aujourd'hui luy seen cadeau moy pourquoi ça bay len pourquoi ça pourquoi ça ça ne va nulle part parce que pourquoi ça je m'en fous la ci teg ñu de loolu lañ doon wax c'est pas ton problème c'est le mien te kula wax na suma yonne wu ci xam nga foo gedd jooy. ak man maa ngi gërëm assistant bi yëpp di gërëm di gërëm tamit groupe GMS bi di gërëm ki représenté émission bi Fadjen ak Sali maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp man nag lu may wax mooy ci éducation bi comme nee nañu éducation dañoo war a yar xale yi mais tamit si kaw yar xalé yoyu man damay blâmer touti sama yaay parce que tay bu xalé ñëwé mu bëgg waxtaan ak yow nga ni ko eh yow demal fé man awuma sa jot déggul woko parce que xamoo lu mu indi té la da nga war prêter attention pour xam xalé bi lan la bëgg wax comme ça nga mën ko jubanti daal parce que mën na la wax lo mu ngi ci erreur yow nga ñëw rek dakk ko mu dem day fogné lolu mo wara wëy te fekk du loolu kon nag damay wax toujours si couple yi tamit nañuy am compréhension di am tolérance te tamit ñuy déggante suñu biir loolu tamit lu am solo la waaw may gërëm sama yaay yi fi toog yëpp maa ngi leen di remercier bu baax a baax dégg nañu li ngeen wax na dinañ ci def attention tamit ñu nit ñi jéem a roy ci seeni tànk def comme ni ngeen def incha allah dinañ ko jéem daal waaw xam naa ne dina métti lool mais nag <laughs> ak madame Dabo mais moom moom macha allah. Mm. ñaawul bi ndax ñun lu ñuy invité sax mun naa ne surprise lañ fi ñëw xalaatuñu woon ne lii lañ fiy fekk waaw ndey ci Aïda daf ñu ne dem leen rek dem leen moo tax bi ñëwee ma ne awa dem leen lan lañ fay fekk bu ñu ñëwee fekk fi jotaay bi macha allah ak télévision bi ñu invité man maa ngi wax ci mbirum sëy sëy neex na neexul neex na neexul bu dee yàlla may na la nga sëy ak nit ki ba ngeen continuer am ay 30 ans 40 ans boobu mun nañ la ne neex na waaye bu dee fa dem bu ci digg kee dem keneen ñëwaat mun na am kay lu mu tàmmoon ak kii lu lay tàmmal munul nekk benn toujours ñun jigéen ñi rek ñu muñ muñaat rek loolu laa amoon pour lu may wax. jërëjëf euh, mbokku téléspectateur GMS yi. ñu ngi leen di sant di leen gërëm donc euh, ñu ngi tàggatoo te tàggatoo bi nga xamante ne bu neex a neex lañ bëgg parce que nee nañ journée internationale de la femme saa ñu toogee nee nañu 8 mars dañ ko war a célébrer waaye yaakaar na ne 8 mars dafa nekk loo xamante ne du tintamarre bi sax lañ ci soxla waaye liñ ci soxla est-ce que 8 mars ñuy def saa su nekk est-ce que mu ñu am impact ci li nga xam moom la ñuy dund ñun en tant que femme dans nos foyers respectifs pour coller au thème ñun ngi ciy gërëm bu baax GMS parce que mon année, ne thématique sax parce que les femmes travaillent man duma xol sama cas particulier parce que sama cas particulier nekul cas bo xamné ne wax mais li nga xamantene ne les femmes yi lu di dund yi misère bi nga xamantene ne parce que les ñi am seen kër bi nga xamantene ne tax ñu am productive vraiment au niveau du cadre professionnel c'est parce que jamm les amuñu ko ci biir kër gi

donc goor da fay salaire am jigéen teg salaire am la loolu edi idéal la ba légui nekagul réalité en tout cas dans beaucoup de fois parce que suñu problème moy da nga gis jigen bu nga xam dalay naan man sama jëkkër polygamie la signé bien séparé kon damay jàpp ne sama salaire mako mom luma liggéey pour man la ku góor ki salaire la ku goor ki day neub bulletin de salaire am ku jigéen nëbb bulletin de salaire kon ba tey tollooguñu foo xamante ne ñaari salaire mo nek ci kër idéal bi nak moy ñaari salaire am jigen booy xëy di liggéey war nga bu amee lu ruus tuuti mu feñ ci bir kër gi bul jappane li lii ngay lii di ruus ci famille bi dang nga koy def pour sa jëkkeur def ko pour sa jëkkeur dang ko def pour njaboot gi pour la stabilité de la famille donc motax suñu combat moy nañu fexé ba ñaar ñi nga xamné ne ñoo sekk sëy boobu ku nekk nga xam li nga xamné mo la war ci sey bi soxna ci may woné bulletin de salaire soxna si bu ñu bidon salaam bu fayee ko waaye woo na ñëw jàkkaarloog ji as ne ko fayeeku na du tax mukk nag mu conditionné la leen lii ngay def ci kër gi doo dit parce que nag nañu waxante dëgg droit lu mu wax leer na de nee nañ la am doit contribuer aux change du ménage loolu am na solo kon nañ ko def te bañ a xaar leneen te bañ a xaar li nga xamante ne mooy suñu suñu suñu ngërëmu jëkkër

yi di am en tant que jeune damay wax ci jeunesse madame euh, Keye Badiane gox né la plupart du temps c'est le choix parce que yenn say yi jigéen dañu yakamti tellement dem dugg ci li nga xamante ne ñi cee dugg moy tax divorce yi di bare ci jeunesse parce que ñun tamit lan moy suñu problème en tant que jeune bo démé ba à un certain temps sama jëm boobu so kenn da nga naan non il faut que j'aille me marier rapidement yow lutax dossier pourtant da ngay gis ay jigen yu bari dinañu sey ke ce n'est pas parce que amuñu éducation bu baax ce n'est pas parce que jongewuñu ce n'est pas parce que peut-être que sen wayjur jangaluñu len wala jogewuñu fuñu nara jogé mais peut-être que c'est le choix qui n'a pas été pris jigen yi léegi da ngay gis bu coofewul bu amul auto bu amul li ma duma ci voilà mu wan la loolu nga dem ba dugg ci biir xam ne kii maag moom bokkuñu jukko bokkuñu jëfin bokkuñu rey moom sax et gëmul yàlla comme man ni ma kii amul éducation bi ma am kon sëy bi du yàgg ça c'est un point le second point moo nekk nit ki booy sëy ak moom dafay fekk nga bëgg ko boo ko bëggul mënoo ko sëyal mënoo ko may ndox mu naan mënoo ko lalal salal mënoo ko raxasal ay tànkam il foog nga bëgg ko donc man maa ngi wax ne que jeunes yi kon bu ñu yàkkamti ne ñu xaar ki nga xamante ne yàlla moom na leen di tànnal ñu dem sëy bu ko defee ñu mën a exercer li nga xamante ne loolu la seen wéy jur jàng et je suis tout ak euh, madame bi nekk ci ginnaaw la jeunesse d'aujourd'hui légui pourquoi man li lan motax li lan je suis tout à fait d'accord avec euh, voilà je connais pas je me rappelle madame voilà donc euh, merci beaucoup et je suis vraiment très contente de faire partie euh, de cette émission avec des grandes dames de Ziguinchor merci merci cher Gouroubon. groupe remercier aussi madame Dabo ak euh, bajan gox bi nga xamne mo ñu invité di remercier sama yaay yu toog fii ak sama sœur bi madame dabu wa di jajeufal aussi fami euh tamit di wax ne euh, euh, les jigéen ñi dañoo war a le mariage c'est une union sacrée l'acte solennel entre l'homme et la femme te fuñu wax union sacrée ku nek amna lu la war goor dafa wara a man sama heure tak jabar jotna te amna luma ma war ci sama jabar jigi jigéen xamna ne man damay dem sey te fi may dem sey amna luma war na wax ne euh, ci définition je euh, damay euh, fay da fay li wax la règle des deux CO manam communication relationnelle au sein du couple après la communication relationnelle au sein du couple il y a la compréhension des deux il faut que les deux couples ñu mën a ñu mën comprendre ku nekk comprendre sa morom après ça ku nekk xam ne dafa am obligation l'homme comme la femme doit savoir que ku nekk da nga am obligation l'un envers l'autre merci jërëjëf Mangi ngi jaajëfal merci. kon nak defe na ne heure baa ngi bëgg man si see man bàjjenu gox maa ngi équipe bu jeunesse xeebuma kenn ka ca ba ci gën a ndaw ñuy gërëm it suñu kilifa mi nga xamante ne moo joxee dërëmam ba GMS mën a taxaw ñu koy ñaanal GMS Ziguinchor fii ak déwén yàlla nañu am bu Kolda ab Sédhiou di ko ñaanal li mu def ci GMS yàlla na ko ko yàlla fulal téeméer ak fukk ak juróom ñuy ñaanit doomu Ziguinchor ñi nga xamante ne am nañ ko moom nañu def comme mom nit ki amuloo lu dul sa dekk kon nak man la laaju leen man nak la ñewé ak nak la man ma gëna a poj parce que luma liggéey dama koy indiwaat dugal ko ci biir kër gi toujours may mëna laaj ma mané ko ma ngi jëndi ginaar ma ngi jëndi yàpp kër ga la koy yobbu kon fofu la doon yam ma pass digënté bi sali nga égalé man jigéen bu ma poj la ma maa sax xam jëna pour, revenir donc euh, à notre thème, on parle donc de responsabilité professionnelle, femmes et devoir conjugal. Cela relève aussi également du fait que toutes les femmes n'ont pas envie de travailler aussi. Il y a des femmes qui s'épanouissent également dans leur vie d'épouse de, hein, et qui aiment bien être femme au foyer. Alors ce thème aussi interpelle donc ces femmes-là qui ont envie donc euh, d'associer les deux. Et concernant donc ces femmes donc, qui ont un besoin donc, de travailler, il faut savoir qu'il y a plusieurs besoins qui les animent. Ça peut être un besoin d'indépendance ou même simplement d'épanouissement personnel mm. parce qu'on s'est investi dans ses études, parce qu'on s'y sent bien et parce que de toute façon, il y a aussi une exigence au niveau financier. On ne va pas attendre qu'un mari après tombe du ciel pour nous nourrir. Donc euh, des fois, on travaille même et puis le mari vient après, c'est souvent le cas. Alors tout cela aussi pose la question après donc, de l'entente dans le couple. C'est-à-dire, on revient encore au choix de son mari il faut bien choisir le mari avec qui on est compatible, avec qui on s'entend, qui nous comprend comme on est et qui sait qu'on a besoin de travailler, d'associer les deux. La vie, elle est longue. On peut être marié 40 ans, comme donc Madame l'a si bien dit. En 40 ans, l'homme de 20 ans n'est plus l'homme de 60 ans que tu as épousé. Il est passé par la retraite. Toi, tu es passé par la ménopause. Tu es passé aussi même peut-être par les changements, le, le chômage. Parce que tu peux commencer donc euh, avoir après un problème professionnel, euh, être au chômage, réintégrer une autre équipe professionnelle, tout ça. Donc il faut que le mari aussi il suit, il soutient la femme. Tout cela dans le respect. Nous sommes dans, sur le plateau, mais on appelle toujours donc dans le respect, la communication et aussi la compatibilité, euh, enfin la compatibilité, c'est-à-dire donc l'entente. Il ne s'agit pas de dire la femme est au-dessus ou bien l'homme est au-dessus, non. Il ne s'agit pas après donc de critiquer, donc euh, faire, des effets donc de pouvoir ou de puissance pour dire la femme est meilleure que l'homme ou non. Non, nous sommes compatibles. Nous avons tous donc nos atouts, nous avons tous nos inconvénients, mais c'est ensemble que nous avançons. Et je pense que c'est sur ça que je vais donc euh, rendre l'antenne, si vous me permettez. en remerciant donc euh, GMS et toutes les femmes qui sont autour de nous et surtout à vous qui nous écoutez, vraiment, je vous souhaite donc un très bel épanouissement professionnel et de trouver le bon mari qui vous rendra heureux.